ne lam ma yootu dama ko ne yow yàlla dama ko ne yow yàlla ay yonente ay yonente yónni nga leen ci ay xeet yónni nga leen ci ay xeet waaye nag am na fa mujjee ñoom waaye am na fa mujjee ñoom de am na ñoo xamante ne am na ñoo xamante ne da leen labal ci géej da leen labal ci géej ni ki firawna ni ki firawna am ñoo xamante ne. am ñoo xamante ne. da nga leen bàyyee ak suuf. da nga leen bàyyee ak suuf. suuf wannu leen. suuf wannu leen. niki Qaaruna. niki Qaaruna. am ñoo xamante ne. am ñoo xamante ne. da ngaa wàccee ay xeer. da ngaa wàccee ay xeer. ci kaw asamaan. ci kaw asamaan. mu ñëw gal leen. mu ñëw gal leen. am ñoo xamante ne. am ñoo xamante ne. da nga leen siba sib. da nga leen siba sib. ba wëlbati leen. ba wëlbati leen. def leen ay ay rab. def leen ay rab de. qiradatan. qiradatan. wa khanazira wal khanazira waa sama xeet nag waa nag sama xeet nag fan ngay ak ñoom fan ngay ak moom ñoom yow yàlla nooy def ak ñoom ñooy def ak ñoom bu ma demee ba bàyyi leen fi bu ma demee ba bàyyi leen fi noo leen di def yow yàlla ne yow yàlla noo leen di def mu ne ko sa xeet mu ne ko sa xeet yow muhammad yow muhammad sallallahu alayhi wasallam damay wàccee ci ñoom ne damay wàccee ci ñoom rahmatan rahmatan min anani sama min anani sama yërmande rek yërmande rek moom lay wàccee ci ñoom. ñoom rek moom rek lay wàccee ci ñoom. dañuy toog a toog. dañuy toog a toog. ba am benn kutla bu rëy. ba am benn kutla bu rëy. benn lumb bu rëy. benn lumb bu rëy. ci yërmande yàlla. ci yërmande yàlla. jóge ca moom. jóge ca moom yàlla. bu rombee xamalatul arsh. bu rombee xamalatul arsh. ñu séentu. ñu séentu. mu ñëw ci seen kaw. mu ñu séentu ñu ñëw seen kaw. mu ñëw romb leen. mu ñëw romb leen de. ñu gestu ko ñu gestu ko ne xaw ma fan la jëm de ne xaw ma fan la jëm de waaye ñee nañu waaye ñee nañu ca fa mu jëm te fa mu jëm mu ñëw ba jubal asamaan juróom-ñaar mu ñëw ba jubal asamaan juróom ñëpp di préparé ñëpp di préparé pour mu wàcc ci ñoom pour mu wàcc ci ñoom ci asamaan juróom-ñaar ci asamaan juróom-ñaar mu ñëw romb leen mu ñëwit romb leen de ñu daldi gestu ñu daldi gestu ne xaw ma fan la jëm de ne xaw ma fan la jëm de waaye fa muy jëm waaye fa muy jëm ñooñu ñee ñee nañ mu ñëw ci juróom benn mu ñëw ci juróom benn de ci melokaan boobu ci melokaan boobu de juróom juróomeel ba juróomeel ba ba ci ñeenteel ba ca ñeenteel ba ba ca ñetteel ba ca ñetteel ba ca ñaareel ba ca ñaareel ba bi ñu tiimu ba bi ñu tiimu ni mu romb leen mu romb leen de bu ñëwee ba jubal ci kaw suuf ne bu ñëwee na ba jubal ci kaw suuf lépp lu yàlla bind ne lépp lu yàlla bind dal di taataan nag dal di taataan de di xaar yërmande boobu di xaar rek yërmande boobu waaye bu ñëwee ba tiimu ñëpp waaye bu ñëwee ba tiimu ñëpp faydalli woote dafay dalli woote de ayna ummatu muhammad ayna ummatu muhammad ana xeetu ana ana xeetu muhammad ana xeetu muhammad ana xeetu muhammad ana xeetu muhammad ñëpp dal di dajalo ne ñëpp dal di dajalo ci xeetam kessé nak ci xeetam kessé nak ñu jël yërmande bobu ñu jël yërmande bobu di len koy seddale di len koy seddale di len koy seddale di len koy seddale di len koy seddale di len koy seddale ba ñom ñëpp ñu doyal ba ñom ñëpp ñu doyal ndax du jeex ndax du jeex de yërmande ba du jeex ne yërmande ba du jeex de dañ koy seddale dañ koy seddale ku ci nekk ñu jox ko ku ca nekk ñu jox ko ku ca nekk ñu jox ko ku ca nekk ñu jox ko ba la ko ca doy ba la ko ca doy mu ne leen doyal ngeen mu ne leen doyal ngeen ba ñu doyal ba ñu doyal yërmande ba dal di demaat yërmande ba dal di demaat mu ne yërmande boobu mu ne yërmande boobu moom lay bugg di wàccee ci ñoom moom lay bugg di wàccee ci ñoom xeet yu njëkk yi ne xeet yu njëkk yi boo defoon bakkaar boo defoon bakkaar ba tuub ba tuub ma fompal la ko ma fompal la ko de mu jeex mu jeex de waaye sa xeet waaye sa xeet lépp lu ñu def ci bakkaar lépp lu ñu def ci bakkaar bu ñu ma jéggaloo bu ñu ma jéggaloo bakkaar boobu bakkaar boobu dama koy wëlbati dama koy wëlbati muy tiyaabu muy tiyaabu de mu ne ci ñoom mu ne ci ñoom ku ci mën a xat mu ne ku ci mën a xat ak fu manti toll ak fu manti toll de ak man yàlla ni ma bëree yitte ak man yàlla ni ma bëree yitte ki gën a tuuti ci ñoom ki gën a tuuti ci ñoom bu ma wu bu ma bu ma bu ma yuuxoo rek bu ma yuuxoo rek woo ma woo ma ci tur bu manti doon rek ci tur bu manta doon ma bàyyi la may def ma bàyyi la may def de wuyu si ko wuyu si ko man yàlla sa xeet rek moo ma ko jaral mais sa xeet rek alayhi salaatu salaam ma ko jaral luñ ma manti ñaan ne luñ ma manti ñaan jox leen de ñeneen ñi ñeneen ñi ku ma ñaan ku ma ñaan bu ma neexee jox bu ma neexee jox bu ma neexee bañ bu ma neexee bañ waaye sa xeet waaye sa xeet buñ ne ak salli ala muhammad buñ ne salli ala muhammad dal di may ñaan dal may ñaan rek ruus na ma ruus na ma de ma delloo leen ma delloo leen ak ay loxo yu neen ak ay loxo yu neen ci ñoom ci ñoom képp ku wéeru ci man ne képp ku weeru ci man mu xam ne am na kilifa mu xam ne am na kilifa de dinaa ko taxawee. dinaa ko taxawee. jàppale ko. jàppale ko ba mu yëg ne. ba mu yég ne. yow ci sa bopp. yow ci sa bopp. dem nga de. dem nga de yóbbu naa la de. yóbbu naa la de waaye féete naa la ci sa naa la de sa gannaaw. fii ci àdduna. ne fii ci àdduna. ku defoon benn. ku defoon benn. ci bakkaar. ci bakkaar. ñaar ñaar ñett. ñett balaa juróom ñaar. balaa juróom ñaar. ma xawi sa sutura ma xawi sa sutura de ñëpp xam li ngay def ñëpp xam li ngay def waaye sa xeet waaye sa xeet ku ci def bakkaar ku ci def bakkaar benn yoon benn yoon ba juróom-ñaar fukk ba juróom-ñaar fukk ba ci téeméer ba ci téeméer ba ba muy dee ba ba muy dee du ma ko xawi mukk ne du ko xawi mukk te bu yomal qiyaamati jotee te bu yomal qiyaamati jotee ñu waroon leen a dugal jahannam ñu waroon leen a dugal jahannam ngir tuubuñu ngir tuubuñu boo ñëwee boo ñëwee ñaan ma man yàlla ñaan ma man yàlla ne may ma ñii ne may ma ñii ma yëkkati jox la ma yëkkati jox la ko nga ànd ak ñoom ci aljanna boo nga ànd ñoom ci aljanna bu dul woon ne ne bu dul woon ne xarit xarit ak xarit ak xarit bu demee tukki ba ñëw bu demee tukki ba ñëw wala bu ngeen gijë gisee wala bu ngeen gijë gisee wala bu yegsee wala bu yegsee da nga koy laaj da nga koy laaj naka yaram bi naka yaram bi naka njaboot ja naka njaboot ja naka waa kër ga naka waa kër ga naka coono bi naka coono bi bu dul woon loolu ne bu dul woon loolu da ngeen ko def ci aada da ngeen ko def ci aada de kon sa xeet kon sa xeet kenn du ñëw taxaw kenn du ñëw taxaw de ma di leen di xisaab ma di ma di leen di xisaab de waaye ngir ne aadawoo ngeen ko wala waaye ngir aadawoo ngeen loolu moo tax ku ñëw moo tax ku ñëw rek ma xisaab ko ma xisaab ko laaj ko laaj ko noo def loo def jag na jag na wala jagul wala jagul waaye buy pare waaye buy pare ma boole ak léppam ma boole ak léppam dugal ci aljanna dugal ci aljanna de lii mooy li nga xamante ne lii mooy li nga xamante ne may naa la ko may naa la ko ci sa biir xeet ci sa biir xeet de moom la arkuwaan di wax fa awha moom la arkuwaan di ne fa awha ila abdihi ila abdihi ma awha ma awha lu rëy loolu. ne lu rëy loolu. bëggul yonente yi xam ko. bëggul yonente yi xam ko de. bëggul yeneen xeeti xam ko. bëggul ko bëggul yeneen xeeti xam ko. ndax def leen beral loxo. ndax def leen beral loxo de. ngir ne yàlla aadilun. ngir yàlla aadilun. waaye nag faadilun. waaye faadilun de. ku mandu la ku mandu la waaye ku mu neex mu may waaye ku mu neex nag mu may xeetu yonente bi xeetu yonente bi na man du ma jëflante ak ñoom man du ma jëflante ak ñoom bila adli bila adli de bil fadli waaye nag bil fadli rek laa jëflante ak ñoom hmm. ba bugg a jox gannaaw ba bugg a jox gannaaw kontaan kontaan bég bég ma gëstu ma gëstu xool xar kanam bi xool xana xar kanam bi ma gis ne mu gis ne lim ma lim ma jox li ma jox kontaan na ca ne kontaan na ca de ma daldi am fit ma daldi am fit ñaanaat ko ñaanaat ko de ne ko yow yàlla ne ko yow yàlla koo gis mu dem tukki ne ko gis mu dem tukki dem ganale ji dem ganale ji balaay ñibbi balaay ñibbi danañ ko jox dinañ ko jox ab yobal ab yóbbal de lan mooy sama yóbbal tey jii tey jii nag lan mooy sama yóbbal li nga wax léegi li nga wax yi léegi loolu sama xeet la bi ba àdduna di tukki loolu sama xeet la de fii bay àdduna di tukki waaye lan nga may jox ci guddi bi waaye lan nga may jox ci guddi bi ma yóbbaale leen ko ma yóbbaale leen ko mu ne mu ne ku ci juddu ne ku ci juddu man may ànd ak moom man may ànd ak moom de di koy garde di koy garde de moo tax xale bu juddoo. moo tax xale bu juddoo rek. ñuy ilikaam. ñuy ilikaam. di di noddu. di noddu. ci ay noppam. ci ay noppam. buñ demee bay dee. buñ demee bay dee. nga xamante ne seytaane dafay teew. nga xamante ne seytaane dafay teew. mu ne man maay nekk ci seen wet. mu man maay nekk ci seen wet. moo tax mu ne bu gaañoo. moo moo tax bu gaañoo rek. ngeen jullil ko. ngeen jullil ko. mooy julli niw. mooy julli niw. bu ñu demee bay dugg ci bàmmeel bu ñu demee bay dugg ci bàmmeel man maa leen fay wettali man maa leen fay wettali moo tax ñuy wax naan moo tax ñuy wax naan ñuy saraxal ñuy saraxal ñu nekk ci bàmmeel yi ñu nekk ci bàmmeel yi amma yowmal qiyaama amma yowmal qiyaama bu ñu dekkee bu ñu dekkee dama leen di boole dama leen di boole ba ñoom ñëpp ñu dajaloo ba ñoom ñëpp ñu dajaloo ma boole leen ak malayka yi ma boole leen ak malayka yi dem dugal leen aljana dem dugal leen arjana lii laa laa sekk ak li ñu am tuuti na est ce que ñu am tuuti na rëy na de ne rëy na de waaye est-ce que xam nañ ko waaye est-ce que xam nañ ko yonente bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon julli dafa doon julli di naafila di naafila bi ay tànkam néewi bi ay tànkam néewi ñu ne ko ñu ne ko lii ngay def lii ngay def di sonal sa bopp di sa bopp pour lan lan la te yàlla jéggal na la te yàlla jéggal na la li nga mas a def ci ay bakkaar li nga mas a def ci ay bakkaar ak li nga defagul ak li nga defagul kon noppalekun kon noppalekun mu ne leen déedéet mu ne leen déedéet comme defal na ma comme defal na ma loo xamante ne loo xamante ne masu koo defal kenn masu koo defal kenn kon dinaa ko gërëm kon dina ko gërëm ba mu xam ne ba mu xam ne góor la jox góor la jox de kon lu ñu yàlla jox kon ñun lu ñu yàlla jox mu nekk lu rëy mu nekk lu rëy est ce que bàyyi nañ ci xel bàyyi nañ ci xel est ce que ay góor lañu est ñun ay góor lañu kon nañu góorgóorlu kon nañu góorgóorluwaat ci suñu diine ci suñu diine nañu góorgóorlu nañu góorgóorlu ci alquran ci alquran moo taxoon mag yi moo taxoon mag yi façon daje yi façon ndaje yi di ko doon nangu ñu di ko doon nangu de ciy daje di ciy daje di ciy fàttaliwante di ciy fàttaliwante di ciy jàngalante di ciy jàngalante yërmaande mën a tasaaro yërmaande mën a tasaaro te boo defee lu baax te boo defee lu baax ci yow rek la jëm de ci yow rek la jëm alquran ne ne alquran ne ndax danaa def jullit ndax dinaa def jullit ak yéeféer ak yéeféer sawaan sawaan ndax dinaa def ki baaxul ndax dinaa def ku baaxul ak ki ak ki ñu tolloo ñu tolloo am xasiba alladina am xasiba alladina ijtarahu sayiat ijtarahu sayiat an najcalahum an najcalahum kalladina amanu kalladina amanu wa amilu salihat wa amilu salihat def lu bon ñii def lu ak ñii def lu baax ak ñii def lu baax da ngeen foog ne dinaa leen yemale da ngeen foog ne dinaa leen yemale mukk du ma ko def ne loolu mukk du ko def de moo xam nag moo xam nag mahyaahum mahyaahum fii ci dund fii ci dund wa mamaatuhum wa mamaatuhum de ak bu yomal qiyaama ak bu yomal qiyaama jotee kon nañu góorgóorlu kon nañu góorgóorlu pour suñu adduna rafet pour suñu adduna rafet suñu allaaxira rafet suñu allaaxira rafet kooku yàlla ñu ko may kooku yàlla moo ñu ko may de بنجك دفع دون وحنان بنجك دفع دون وحنان من كان يريد حرث الدنيا من كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها نؤتي منها حرث الآخرة حرث الآخرة نزيد له في حرثي نزيد له في حرثي بوب موي قاعدة الأساسية بوب موي قاعدة الأساسية بموين آدم بموين آدم بموي بسيدنا إيسا يكسي بسيدنا إيسا يكسي واي سيدنا محمد واي سيدنا محمد دفكوني دفكوني ربنا ربنا آتنا آتنا الدنيا في دنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة, حسنة kon adduna bu rafet kon adduna bu rafet ak allaaxira bu rafet ak allaaxira bu rafet ñun la ko yàlla dig ñun la ko yàlla dig xeetu yonente bi xeetu yonente bi kon nañu góorgóorlu kon nañu góorgóorlu yal nañu yàlla jàppale yal nañu yàlla jàppale xol yi yal na ko yàlla leeral xol yi yal na ko yàlla leeral li fiy wàcc ci yërmaane li fiy wàcc ci yërmaane ak li fiy wàcc ci ay malayka ak li fiy wàcc ci malayka yal na yàlla far bakkaar yal na yàlla far bakkaar yëpp yal na yàlla faj aajo yëpp yal na yàlla faj aajo yëpp yal na yàlla wéral cër yi yal na yàlla wéral cër yi guddal suñuy fan guddal suñuy fan ci mbaax ci mbaax ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla ci leer leer ci sutura ci barke alquran karim ci barke laa ilaha illa allah muhammadun muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin fati ne mu ngi jéggal yëpp ñu def fatiha defal ko ko yàlla guddal fanam te may ko wër lépp lu mu sumb rek yàlla sotti بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم komunyan insyaallah insyaallah komunyan